dikkati naa ña ngay saax-saaxee alalu askan wi ñu gàddu seenug loxo mel nu ku naan wu yaay loo ci mënti dégg turbine yéen kaay naan maan réew mi li ñu ko teg mënees ci génnee ministre des finances yéen kaay yib des médias bi naan maan caxat-caxatee nan alalug askan wi ñu ne déetawaay suuf sa nga xam ne askan wee ko moomal seen bopp ñu ne ko tuñ ci ñoom jël askan woowee dàq ne leen lagg leen wuti feneen saax-saaxee seenug suuf ba maar day taali waaye nag saax-saaxee alalug askan wi sàcc saax-saaxee suufu askan wi sàcc mëneesu ci génnee nag ministre des finances ndax mooy patron direct yu directeur yu budget ak bu impôt et domaine te sax saaxee gi ñu sax saaxee suuf si wane na ni nag askan wi ci boppam lanu ronxee seeni suuf ci seen bopp te réew daal boo ko bëggee dëgëral ñépp daal di tolloo ak ak yelleef doxal yoon rek te doxal yoon mooy jël ñii teg leen ci yoon fa yàllaaxu ñu goqi mbaa ñu delloo askan wi seenu moomee rek laas yéene kaay naan man Sonko ma ngay tabb nag di natt ay priorité am ci gouvernement gi diggante wàññi njëg yu cher yi ba askan wi mën a dundee tenkiw waaye Sonko nga naan réforme fiscale faaw mu am ci réew mi Ousmane Sonko nga naan campagne production agricole bu jaar yoon bi mënta ñàkk ci réew mi dama cay taxaw laas naan man Ousmane Sonko nga naan programme 100000 logements yi ab yitte la boo xam ni dees na ko teg ci réew mi Le Quotidien Le Quotidien naan kon déet président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ke ci yoon la nekk te yoon wee teggiwul benn yoon tànkam ci yoonu président Macky Sall programme ya Sall soobu woon ak FMI da koy wéyal waaye tam nguurug Sénégal projet 100000 logements yi nga xam ne moom président Macky Sall tego tegoon na ko fi day daal di wéy bourse de sécurité familiale yi fi sàll tegoon day daal di wéy l'info mel ni ku naan kon bu leen ci lii rawee tàkk ngeen de ndax président Diomaye jël na yu baax ya téye waaye yu bon ya nag ma ngay démaquillé yéeni kaay bi naan man ay kàngam yu nekkoon ci nguuru président Macky Sall Diomaye faase na leen fa yàllaahu tribune naan kon maa ca mën maa ëpp doole président Diomaye écarté na Diouf Sarr président Diomaye écarté na Abdou Karim Sall président Diomaye écarté na Maguette Sène président Diomaye écarté na Ousmane Silla te naan gi Dakar dem dikk moom mënta ñàkk soleil naan kon may ma ma ñëw maa ca mën l'info naan kon bari na ci responsable Pastef yoo xam ne président maqal na leen ci mburaaki gi Mimi Touré ci l'observateur mel ni ku naan kon ngeen bëgg réew mi ku ko jëli say nit yi nga wóolu ngay jël fegg sa wet doo jël ña la daan jor xeer di la tam wax yu ñaaw nga teg leen sawet wet mënta ne soo jëlul say nit sax dama bëg xam koy jël l'info naan kon en tout cas diggante Senelec ak Lonase moo ci des lu mooy yooyu moom président Diomaye roqi na rofaat ñeneen mi ko dijee naan kon du yoo Diomaye Sonko placé Touré ñu def ko directeur général bu SOMISEN ARTP Dakar Dem Dikk COUD COSEC SONES SAR CFS TDS SA ak FONSIS ñoom ñëpp soppi nañu njiit critique naan kon waaye tey la nar a métti ci ñenn wala ña nga xam ne dañ leen jàpp loxo ci poche ñuy sàcc lu askan wala suufuk askan wi yéeni kaay bi naan maan bu leen yeboo jooy de la xale ba ne woon yaayay jooy doo dem critique naan maan ñoo yay jooy nag ndax fi mu ne sës nañ leen ci miiru wis bi gasoo leen jëm wala fu nuy tàbbi en tout cas moom président Diomaye mi ngi ak seeni te lam ca nar nag ñoom ñu jooy naan kon fi mu ne nag opération gox moo war a am ci mi ñu def sàccalalu askan wi lii moo war a am opération goqi daar daar ñu jébbal askan wi seenug moomeel libération yéen kaay naan man tey sàcc gi sàcc gi moom dafa daal di sax jéggi dayoo rapport cour des comptes bi boo ko xoolee sa yaram daanaka day daw ci nañu ronxee alaluk askan wi jël seeni tur soppi ko ak yeneen tur yoo xam ne daanakay prête-nom dong lañu ay commission yoo xam ne ñoo war a superviser xool ku gën a yeyoo mbir ñu jox ko ñu jébbal leen koppar yoo xam ni maar day taali ay ko ay ministre ay député bokk ci haut conseil collectivité territoriale ñoom ñëpp daanaka paacoo suuf ak alalu askan wi libe naan man ñetti milliards ci suñuy koppar am na ci surfacturation ci coowal jalis la ay chef de service ay directeur d'hôpitaux ñoo xam ne dañoo jiite ay hôpitaux publics fii ci réewum Sénégal soppi seen bopp nag ay courtier ngir societé bii di Nipro waaye tam société bii di Fresenius di jël kit yi di ko jaayaat ci anam woo xam ne salte na ñaaw na ñetti milliards laa ci xaalisu jalisu réewum Sénégal daal dinañ koy luubal yéene ab centre bu nekk fii ci ndakaaru ICP administrateur ba doonoon ab italien dafa toog ba mu neex ko mu jël centre ba jébbal ko femme de ménage ba ak jardinier ba ne may ñibbi itali yéen bi naan maan ñaari faatu yoo xam ne teey na xel am na ca boobu le centre société bii di Carrefour médical moom ak Fresenius médical lekk nañ moom ba maar day taali turbine yéen naan ko déet xam nga coow la ca bëndum teen ba gaaña baaga Carrefour médical ak CCBM tuuma yi leen teg ci enquête nag gi dara amu ca tuumaal CCBM ne day jaay ay kit jalis Carrefour médical moom CCBM yënguwul ci wàllu paj jaayul matériel médical naka la mën a jëlee ay kit jalis di ko jébbal Carrefour médical yéen kaay bi nan man heureusement ba of nag amul benn charge wala infraction boo xam ne tuumaal na ko wala mu duut ko baaraam Carrefour médical ak CCBM bu dee ci appel d'offre 2011 ba jébbal na ARMP luy wane dëgg-dëgg lu tax mu gañe marché yi te coow li mooy tey jii ARMP ci boppam mooy fixé njëgu kit yi muy 35000 francs direct ci réew mi toll ñuy jëlee moo ñaaw salte yéen kaay bi nan man laggal ba Cees kaay benn dëkk ñaari gaar benn citoyen boo xam ne amul lu mu defal réew mi lu ñu mën a duut baaraam fukki hectare ak ñett la jël nguufaan ci waxtu wa nga xam ne ñetti hectare di téeméer ak ñaar fukki parcelle la ñu jébbal citoyen Cees waay ay kàngam woon ci régime bi ay homme d'affaires yoo xam ne jege nañ ko moom waa joojee moom treize hectares yi ñoo jël ay lotissement Mbour quatre pàccoo ko ba mar day taali ñenn ñi am ñetti hectare ñenn ñi juróomi hectare ñenn ñi fukki hectare hectares ñenn ñi fanweeri hectare ñenn ñi sax daanaka juróom fukk ci ay hectare am nañ ko am na ci koo xam ne ab dëkkub lëmm la am ñaari téeméer ci ay hectare ndax nee na yoo yaay dafa jege régime ba woon baykat ñu jël seen suufu xartee ko ci ñoom ne leen nag état moo ko soxla waxtu woowu amul benn mbir boo xam ne utilité publique la def nañ ko fa xanaa kay paacoo ko seen biir la ñu def yéeni kaay bi naan président Diomaye xippil xool doxantul ànd ak moo Gueye ex directeur domaine nga doxantu ba peggug mur aéroport Léopold Sédar Senghor da nga xam nag nañu saa saax-saaxee suuf si nan la Sud Quotidien naan maan liyee taxoon nag ca mil 2020 moom of nag doon alerté naan attention diggante département bu Ndakaaru Thiès ak Mbour ña ngay sàcc suufu askan wi di ko saax-saaxee ci anam mu ñaaw dem na mani la ba guerre di am ci suuf soosee Le Soleil yéene kaay naan kon ay état générau day war naa am lépp jëm nag ci dem ak di lancé BRT bi ña ngi cay taxaw waaye audité Dakar dem kiit it ngi cay taxaw l'observateur jox kàddu Eliman Abi kan bu Lex Africa muy xamle ni dëgg-dëgg teg nañ baaraam ci ñi nga xam ne nee ñu ñoo sàcc alalu askan wi la ca des kay mooy teg leen daan yi nga xam ne moom moo war moom président nag am nag doole ak sañ-sañ jooyenti band yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñu épinglé leen ñu jël alalu askan wi daal di koy jaawaaleeg seen yoos jël alalu askan wi tàbbal ci seenu njaboot ci luxe goo xam ne maar day taali ay ata ngi nii ñu leen naan niip loxo ci poche ñuy sàcc alalu wi tey jii moom président Diomaye moo ko war a joyanti bi nag mooy jël daan yu mat sëkk teg leen ko ba ëllëg ku nar a sàcc wi di nga xam ne fii mus du fi naane ñeex Walf Quotidien naan kon en tout cas coowal drogue moom mi ngi mel tulleeg leen la ci réew mi lu toll ci ñaari téeméer ci ay milliards yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci drog bi fi mu ne nag mi ngi ñu daal di dugal ci immobilier immobilier yi sax bari ci réew mi lu ci ëpp xaalisu drog la lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm